Assalamu alaikum. Mangi suis Ibrahim Khalil Mandian nek euh, ci mairie en tant que le chef de cabinet du maire mais fii nek ni, nii muy le poste de santé Imam Madani euh, kër madame Sougou SR man ma fi nek le secrétaire exécutif du CDS comité de développement sanitaire. waaw tey euh, mën naa wax mairie ak CDS ak poste de santé Nous sommes de nature ay collaborateurs waaye tey dañ cee boole askan bi parce que dafa am ay euh, euh, ay manifestation yu xewoon depuis le mois de juin manifestation yooyu engendré woon ay yàqu-yàqu ci biir mairie ba moo xam saccage bi ñu defoon ci mairie bi ak yeneen institution yu bëri ci commune bi mais commune bi comme dafa mairie bi dafa représenter la population euh, ci la këyitu xale yeeg suñu mariage yeeg décès yeeg yëpp nekk malheureusement mu amoon ay saccage yenn yi lakk Il ñu xaw leen sauver boobu ba léegi nag mairie bi dafa à a def benn bu ndaw yóbbu état civil bi fële ci kër monsieur le maire ci kaw terrasse bi pour mën a fexe ñi nga xam ne nekk ci jafe-jafe am bëgg am këyit te mënuñu ko am ñu jàppale leen waaye daf ci depuis juin juillet août septembre octobre novembre ba décembre bii ñuy wax ñi

signer toutes les déclarations bu ko défé xalé yi baña bokku ci loru bobu nga xamni ni ñenn ci loru ndax xalé bi juddu yoonam newu ci xalé bi nga xamni dafa juddu yoonam newu ci ay manifestation kon donc warul bokku ci ñi nga xamni dañ leen di bañ ba moom du am keuyit ndax ëlëk ci biir daf ko wara top xalé bi dafa wara mag xalé bi dafa wara dem école xalé bi dafa wara mag yor njabot état civil manque manqué début bi muy sa déclaration de naissance une perte nga superior l'intérêt supérieur de l'enfant intérêt supérieur de l'enfant moy xalé bi da ngay xol li gën ci même bu féké du bëgg-bëggam sax nga taxaw ci âge bi mu amagul mois wala amagul sax 1 an donc mënagul xam li bëgg yow parent bi taxaw à ce que sa dom ak ak yelef bi la war sa ak nga am am reconnaissance ñoo xam wax dëgg yàlla xale bi fii la sosoo fii la juddoo at bii la bi la gox la donc loolu day permettre à ce que xale bi su màggee mu bañ am benn jafe-jafe bu koy topp ci ginaam ci waral ndaje bi ngeen gis nit ñi ñëw en masse pour déclarer seen i doom. salaamaaleykum maa ngi madame Gaye man maîtresse sage-femme poste santé fii si école neuf imam ma daane ni bi xam nga lu ko waral xale yu bëri suñu juddoo bu ñu am këyit seen parents yi dañuy négliger ba nga xam ne délai bi ñu leen mayoon passé na ñu war a dugg école fu ñu dugg fa ñu yàqal leen lu bari te tamit dañoo amoon problème ak euh, suñu mairie post bi mooy mairie école neuf bi xam nga problème bi fi amoon temps ban saccagé woon mairie bi moo taxoon ñu bëri lii euh, déclaré woon leen woon tey nag ak euh, mairie bi ñoo ñëw fii yombalal ñu ko wax dëgg yàlla déplacé wu ba fii woo ñu woo nag popul euh, lii accouché yi ñi fi accouché wu jotoon accouché ñëpp pour ñu ñëw ñu defaral leen seen acte naissance. ah xale xale xale bu juddu bu nekk c'est son droit dafa war am kayit parce da koy mën a ubbee si lu bari. pour mu mën déjà ah, ah ñàkk am nañu xale yu bëri ñoo xam dem nañ ba def ay bac diplôme ay këyit yu bon moo tax lii leur rien boo amee doom rek demal déclarer sa la lañ population ah mairie Pikine euh, Nord moom ma def lu remercier parce que lii lépp mënoon na leen seen fekk wax dëgg yàlla ak

ma déclaré ko benn yoon ah waaw ah, c'est extraordinaire de parce que fi mu nekk moom nit ñaa ngi ñëw te ñu ngi déclaré bu baax nag waaw ah, te euh, jafewul daal jafewul lépp yomb na incha allah waaw ay jàmbaar lañ nag wax dëgg yàlla seen taxawaay rafet na trop waaw ah, te it gars yi ñu ngi leen ñu ngi leen gërëm bu baax nag waaw ñoom ñu ngi leen gërëm bu baax ñoom ñu ngi leen sant ndax ni ñu taxawoo nit ñi moom rafet na lool wax dëgg yàlla macha allah waaw amuñu fi benn jafe-jafe nag da ngay ñëw ñu accueil la normal waaw dëgg yàlla bravo